nekk ci tiitaange xaw tuut nag musiba daal di koy dal ci seen buntu kër gi nekkee nag ci quartier Alassane Mbaw bu yëmbal sud ab policier bu yore jaas yi moo daal dee dagg loxo ndeyjoor bi ci diggante nag ñaari baaraam yi. métti na torop métti na torop dafa xóot naa métti na torop bi mbir mi am fekk nag 9 ci guddi daal dee wees yamoo couvre-feu bi it dee tàmbali ci la gonek tailleur bi ay atam toll si ñaar fukk ak juróom-ñeent génn nag ngir sànni xottu nen yi mu tojoon ngir defal reer dóor ba li ko ciy fekk nag daal ko ciy fekk. dama defar omelette bi toj nee ni def ko noonu ci laa génn di jotee xottu nee ni ci buntu kër bi noonu ci la ma fekk mun ma yow laay génn la police la police dóor ma may may riposter après ci la jaasi nar ko dóor ma téye jaasi sama main droite mu rocc ko looloo tax mu blessé ma sama loxo ndeyjoor ci laay commencé di yóoxu gars yi génn seen biir kër. laxaat daal dem l'hôpital ñu koy defaral certificat médical bu ko may fukki fan. ak juróom yu incapacité de travail yi. dañuy porter plainte moo ko gisee dinaa xam ni kii la. ci quartier bi ñu fi dëkkee nu guddik tiitaange ak njàqare kortu nag la ñu daal di dund. mu taxaw ci diggu koñ bi di vantew di saaga ay ndey ne mu wax. ak jaasi bi mu yor ak yooyu noonu yëpp. waaye moom alkaati bi it génnew ci noonu ndax yëf yi tàngoon na ci moom. ci laa buuju fii benn kaba daal di ci kanam. dafa daw dugg si bi si oto bi bi bi muy daw di rëcc ci la fa bàyyi nag jaasi ji mu yoroon ak patt dàll càmmoñam ak ak mbaxana bu xonq ba mu soloon ak tamit benn pompe à gaz. lépp nangu nañ ko bu téye ko lépp a ngi fii. lii mbaxana ñi dëkkee ci koñ bi mu am ñaar ci ñoom ñu daal di teg ay loxo ak ñaar tamit ñoo xamante ni ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu